tey itam fayagul ñoo ngi wéy di ko yëkkati déggoon nañu sax jamono jële ngeen bëggoon a def député benn bokk yaakaar yi ay pexe daal ba xañ président de la république mu mun koo tas ginnaaw gi dégg nañu ne président Macky Sall waxoon na ay député am ko teg ci suuf euh, loola fu ngeen ci toll ak naka ngeen di xaare xëy na tas googa ñuy séentu ah wallahi ak koor gi ma koor lii ngay wax nii bokkuma ci réunion buñ ko waxee kilifa Macky Sall waxuma ko ku jege Macky Sall waxuma ko bi ñu amee suñ dernière réunion am na ay députés yu ko laaj du Mbow mm. président Abdou mbaw ni ko dégg naa ni président Macky Sall moo la woo mu ne aram président Macky Sall woowu ko du tas assemblée du yëfi Benno Bokk Yaakaar rek yëfi assemblée la yëfi député bi la mm-hmm. su ko député yi namee du waa Benno Bokk Yaakaar rek de mm-hmm. waa taxaw du ñay député waa PUR du ñu ay député ñii Pastef ñëw du ay suppléants la ñu woon du ñu ay député quel est le prétexte pourquoi ñu bëgg ko jiiñ yoon la nag ku ne nga yëkkati ko c'est vrai dans une conférence de presse bi gars yi génne ñoom itam génn nañ wax ci mais jàpp ma ni en tout cas wallahi al azim te bokkuma ci réunion bu ñu waxtaanee de manière formelle ni nañ jëli pexe pour que bu ñu bëggee tas assemblée nationale bi ñu def motion de censure non on n'est pas dans cette logique réew mi ñu ñor. mandat député peuple bee ko joxe woo mais mën na ko joxe waat li am solo ba am solo mooy ñoom ñu wax les prétextes les raison lan moo waral bu ñaari at yi moom ay na yéwén kenn mënul tere président su ko bëggee ci coobare boppam mu anticiper la dissolution de l' assemblée nationale waaye bu ñu jël ay prétextes bëgg ko jiñ ay nit boobook léegi yéen journalistes yi nag naan ñun dañoo noppi ñun dañoo sedd ñun parce que itam nag nit buy door a falu ab diir di nga ko may. xool fu mu jëm. moom bu président Diomaye Faye génn loon def ses cent jours ah man di ku mel ni man dama doon toog di xaar bañ wan ñu yoon bi mu defee cent jours nag laa ne ah cent jours yi naam kenn mënu cee nat waaye nit mën na cee fàttali nit mën na cee apprécier loolu la mais amul fenn foo xam ne nii ñun en tout cas man je suis de Benno Bokk Yaakaar à niveau de l'Assemblée nationale je le président de la commission des lois amul benn instance politique bu daje bu ci wax au niveau de l'Assemblée nationale ou ailleurs sur les questions bu ma fekkee man Moussa Diakhaté parce que nit tam sooy wax da ngay wax rek li nga xam léegi la ci des nag xam nga c'est de bonne guerre ku ne qui veut tuer son chien l'accuse de rage. ba tey yéen a ngi ci sàkk ay pexe pour président bañ a tas wala. tas ak ñàkk a tas du suñu problème ñun. d'accord ñun suñu problème mooy on a un mandat du peuple bu ñuy doxal yàlla def constitution may président de la république bu ñu dawalee ñaari at. mu am coobare moom après avis du conseil constitutionnel. ak du président de l'assemblée nationale. dissoudre loolu c'est le prérogative essentiel primordial du président de la république. jéemu leen ci dara yéen député yi benn bokk pour pour quoi faire. Ah, xëy na pour defante. non amul defante defante kay mënta weesu delluwaat ci askan wi laaj ko surtout bu doon ñoo xam ne ba ñëwee dañoo dalal al xelu askan wi li am solo kay le véritable enjeu mooy opposition bi def bloc. ndax ñii ci en trois mois wan nañ Sénégalais ni mënuñ wan nañ Sénégal lañ leen wax du dëgg te bu ne mën naa la ko wax parce que du ma sos. Mm. luñ waxoon te defuñ ko Sénégalais yaa ngi may dégg di ma seetaan luñ diggee woon te jëfuñ ko Sénégalais yaa ngi may dégg di ma seetaan comme ñoom seen bopp ñii falu tey ñoo waxoon yaa deux ans ni jox nit réew jox ko assemblée musiba la ndax loolu la ñuy waxaat tey am déet Sénégalais yi dafa nu de gis nga réew mi dama ko faral di wax rek nit ñi. ñoo jiitu politiciens yi ci xelaat ci xam-xam ba tax na booy def di naxe ñi nga téye seen carte dala xaar dana am nag ñu ànd ak yow loo mënti wax ñun la yow waaye ki yor tam te réew mi rek ñor ko dana xool ku dal xelam dana xel ku koy liggéeyal dana xool ku amal njëriñ wooteel ko donc tas ou pas tas dama ne bu ñuy tas bu fa bàyyi bâtiment ya nañ ko yóbbaale ah, ba beneen itam euh, la fonction de député c'est pas une fin en soi foog ñun ñiy yëngu ci politique dama koy faral di wax ñu doon ay royukaay ci am métier ci jikko réew soo ko buggee liggéey da ngay nangoo liggéey yow d'abord servir d'exemple à la jeunesse nga doon député nga ñaan ko doon député sa taxawaay ci réew mi warta soppeeku maintenant nag c'est vrai être député c'est des privilèges da nga am tajax dayoo taxawaay cër boo xam ne nii sa àgg sa kàddu fi mu àgg citoyen bi àggu fa li am ba am daal man de laa wax te dëgg bokkaguma ci réunion boo xam ne nii la Benno Bokk Yaakaar daje nañ ci wax ni dañuy opposé wu pour ñu bañ a tas assemblée nationale fekkee gu ma ko de bu amee itam nii ma la waxee rek boo ma wooyee danaa la ci waaye ba fii. Mm. ñun daal ñu ngi doxal comme ni ñu doxalee bu dee yaa ngi suivre samay page. maa ngi dem ci séminaire yi maa ngi dem ci formation yi ñu ngi jouer suñu role de parlement dem ci population bi donte ñu ngi en vacances parlementaires parce que en réalité. seul le Sénégalais va nous juger et lu rek am solo li ci des nag c'est bon bonne guerre parce que xëy na ni Ousmane daa bëgg ñëw am assemblée boo xam ne nii yaakaar na ni bu ñu demee élection dana fa am majorité lu ma foogul lool moo tax muy bëgg retarder mbir yi pour que jàmmarloo parce que nag euh, il a ce problème boo xam ne ni Sénégalais mën nañ constater apparemment ñemewul jàmmarloo ak kum tollool xam-xam ñu weerante bu dee seetlu nga même Ousmane du def même yéen taskatu xibaar yi su ngeen dajeeg moom day wax ak rek dem yoonam du nangu ngeen njël ba toll te nag fële ku ñëw dañ lay challenger da nga war a jàngaarloo ak ay député diplomate yi taxaw jàll ko télévision ñu xool ndax maîtriser nga état ndax vision bii ngay andi dañ ko bind jox la pour nga dem présenter wala yow yaa ko andi di xam bu dee yow taskatu xibaar bu dee yow intellectuel su premier ministre su waxee di nga xam ni kii il connaît l'état ou kon nag na ko wala matu ko contrairement li président de la république di wax moom nee na ñetti ci natt ko natt nguuram waaye moom ñetti weer doy na ci moom pour mu natt le meilleur premier ministre de tous les temps pour waree ni rek ni ils sont encore le meilleur ils sont encore dans le bluff kon yow da nga jàpp ne Ousmane Sonko problème boobu la am moo tax ñëwul assemblée. man lu rek laa ko foog parce que ku bëgg mbooloo la ku bëgg tiire parce que lii may wax euh, les experts mën nañu wax parce que waxuma lu soxor. wax ma lu bon dafay bëgg c'est quelqu'un qui veut tirer la couverture sur lui c'est quelqu'un qui aime les lumières euh, braquer les lumières sur lui te y pas meilleur moment que la DPG su dee mën nga tu te souviens de la DPG de Abdoul Mbaye tu te souviens de la DPG de Idrissa Seck tu te souviens de Aminata Touré c'est un grand moment de communication pour un homme politique pourvu que nga am les compétences de prouver li nga mën ndax nag euh, gars yi loo leen contre contre contre suñu waxee Aminata Touré guddi ñu toll dañoo féewaloo ci gis-gis. mais bi muy def DPGM bi kuy jigéen nga seetaan ko keroog tu étais fier ak foo munti bokk. Mm. sa Seck keroog ba muy wax c'est des moment forts de la vie politique de la démocratie des rapports entre l'exécutif et le parlement gisuma benn homme politique qui veut de l'ascension qui veut être vu qui veut être compris bu koy bañ maintenant nag euh, su fekkee ni tam amoo projet bu fekkee ni yaa ngi koy bindul su fekkee ni tam nanguwoo critique ba pare bu fekkee la nga lebale démb daa baaxul. tey boo fa ñëwee dinañ la ko wax. nan la leble ah oui saaga yeeg xaste yi. Ah, ak jaar jaar ah oui ci député yi. ñu xas barki démb nga fi tege am na ñoo xam ne xëy na man de la ma waxoon laay wax sama position wu démb du ma ko varier je suis sur des principes. Mm-hmm. assemblée du wax lu may xeebee du ma fa wax di saaga. li ma gëm nag sañ naa ne pataas sama gënal pomme mm-hmm. te noonu la war a ci képp koo xam ni dañ la jox de responsabilité ay xale toog di ñu seetaan dañu war a nekk ay royukaay donte bokkuñu lu ñu gisee waaye su fekkee ci outil wa rafetaloo. sa yorin du yomb de du sedd de te gis naa assemblée ñoo xam ne ñu ngi toog temm di ko xaar ak seen i question sur sa vie. est ce que yéen a koy xaar itam ak motion de censure boobu menace yëkkati woon nañu ko. bon xam nga koo xamul man laa wax par principe li ma waxoon sama gaawu ñoom bi Amadou door a ñëw ñuy door a démarrer koo xam ne ni dafa ñëw présenter programme mën nga def des remarques ci programme bi bàyyil mu dérouler. su fekkee ni fi mu jëm baaxul ci yow nga def motion de censure waaye salaamaaleykum motion de censure man gëw ma fayantoo ci politique man gëw ma fayantoo ci politique man gëw ma fayantoo ci politique man li ma gëm mooy ni moom ñëw na nañu yebbil naa nag li may bañ mooy ñi ni de facto kenn waru ko def dama bëgg ñu xam ni prérogative assemblée nationale la député bi sañ-sañam la mu def ko waaye bëgg naa balaa ngay def motion de censure nga xam waa ji xam balaa nga toj gémmiñu sàmm nga xam la muy walif lan la ñu andil fan la ñu jëmee su fekkee ni lam la andil ak fan la jëmee doyu la tu as ce pouvoir de le faire mais de facto dire que ni parce que dama contre ñi non jàpp ma ni un démocrate dina doxalee noonu jàpp ma ni un républicain dina donte nag euh, on l'attend de toute façon daal moom daal jàpp naa ni bëggu la ñëw li ma la bëgg wax daal ci gàttal Ousmane daal bëggul ñëw assemblée. bëggul ñëw assemblée alors yow yaay président commission de lois bu assemblée nationale loi d'amnistie ñu woote ko fi bi président Macky Sall yi waaj dem waaye ba mu demee ba tey it coow laa ngi ne kur ci penc mi ñuy wax sax waxi abrogation ndax dafa am yu fi xewoon ñu ne loi bi daf ko suul te euh, leerul defuñu ci yoon enquête ñu ci xamuñu kii kii kii qui a fait quoi euh, boo déggee ñuy wax waxi abrogation en tant que député en tant que président commission des lois ku ñu woote booba lépp loi lan ay doon sa réaction. absolument rien jàpp rek nii ay procédure man na mbir mi jaar yoon rek ku xam nag xëy na li ma xamoon. Hmm. xëy na di nga xalaate nen may jaal ñi ci gaañu parce que damay faral di wax démocratie benn loxo bu ci dammee si trop hmm. waaye fi réew mi jëmoon suñu daluloon wuti waxtaan mën nañ am lu piir li fi jot a am. Hmm. buñ demee ba wax amnistie c'est parce que la nekkoon baaxul. la nekkoon rafetul la nekkoon jéggi na dayoo ci tele lay waxe demoon nañ jamono ci réew mi ba nit ñi di wax xelaat ndax armée bi du jël pouvoir bi mhm. nit ñaa ngi koy dégg fitna bi toll ni tuleeg male le président de la République Macky Sall mhm. bi mu jëlee sur lui-même la décision de renoncer à un second mandat bi mu mënoon def dafa jël la responsabilité contre son propre image def une loi d'amnistie bi nga xam ni peut-être dans l'histoire les gens reviendront waxtaan ya ca am déggoo ya ca am dal ya ca am même bu fekkee ni devant la caméra ñu bëri dañu daw par manque de courage pour mm-hmm. assumer leur position initiale dinañ gis ni bi ñu fa jógee lan la jur dem nañ ci élection ñu am ñu falu deret turuwul bal tàkkul bakkan rotul ma dégg président de la république du Sénégal nouvellement élu mm-hmm. mu ni dinañ indemniser les victimes jàpp naa ni waxul mbiru abrogation jàppuma dégguma Ousmane Sonko itam mu ni premier ministre président du parti le plus concerné à l'époque si je ne m'abuse mu ni dinañ ci dellu si maintenant que des citoyens que des sénégalais que des observateurs wax ni dañu bëgg ñu abroger loi d'amnistie c'est leur droit d'opinion maintenant quant aux décideurs j'attends de voir qu'est-ce qu'il en pense quest en décide et on tirera les conséquences li am solo ba am solo mooy ni yéen a ji taxoon ñu def ko yéen a ji taxoon ñu défendre ko mooy fitna tolloon na foo xam ni mënoon naa yokk lépp luy andi jàmm nag pour man Moussa Diakhaté aucun bras n'est de trop aucune décision n'est de trop maintenant ku nekk di nga ko apprécier ni nga ko apprécier ñu ko defee itam bi ñu tëddee dañu nelaw defuñu ko mm. pour régler waaw waaw très honnêtement parce que fi réew mi tolloon fi nit ñi tolloon ci information ba tey li ma waxoon les menaces ne sont de nous la ma waxoon lay waxaat Macky Sall jógee na fi noo états notre état doit être très vigilant parce que am na des menaces qui son là que moindre étincelle il risque de faire brûler ce pays. Mm-hmm. ak li xewoon ci biir kër yi li xewoon ci dëkk yi ba pare muy nekk aussi une leçon pour la jeunesse de mon pays. Mm-hmm. qu'il évite de suivre les hommes politiques ci loo xam ni seen bakkan da ciy xacc surtout leur concernant. ma vie privée mes affaires